liggéey bi li muy rëy rëy dañ leen di wax ki ko waral ki waral liggéey bi mooy la ministre Mame na Dieng moo waral liggéey bi damaa bëgg ñëpp tàccee ma Mame Thierno Dieng ndax Adja Oulimata Mame maa ngi koy wax démb sa programme bi Mame Thierno Dieng ba ñu commencé ba léegi bi xamante moom ak léegi xamante nañ yàgg waaye biñ digaalee politique ak léegi motul weer te Mame Thierno Dieng buñ ko woowoon ji na ko suba 10 millions lañ soxla ci guddi gi dana fexe nu ñu ci mën a jote liñ doon def maa ngi lay xamal ne président Macky Sall mooy liñ doon def ñun maam Thierno Dieng mooñ ñu ci jàppale. ndax metti na ralliement moo ñu ko defal leneen li ci des lépp leer na staff bi ma àndal di sant nag di sant nag sa gouvernement bu ko tàmbalee ci premier ministre Boun Abdallah Dionne sama xaritu sëriñ maa ngi koy sant bu baax te di ko gërëm ndax moo jiite gouvernement bi di la xamal ne président Macky Sall boo tëddee nelawal saxal na daal fii ci Daaru Salaam ndax comme li ma ko waxee démb Daaru tey jii le président Macky sàll dafa fee am ay gaynde gaynde yi mooy ay doole Daaru jóg nañ wàcc ci terrain bi Adja Oulimata ngi nii toog sama ginnaaw ba campagne bi ubbee ba léegi toogul Dakar mi ci terrain bi di wër fii ci département Mbacké di la xamal ne man mii Adjaratou Ndeye Diop man ku ma àndal na sa xel dal ndax man ku ma àndal li mu laaj lépp dama ko koy jox ba mu mat dama ci bàyyi dara man boo déggee nit ñi naan wonu sama ndeyjo mënut a politique mooy ndoo ci ma waree jaay kër damay jaay ma waree jaay takkaay damay jaay takkaay def ci ndax nit nit ki lu mu sombi war na koo mën a naan man xaw ma nga engagé dem ba ci biir ngay arrière di daw man xaw ma loolu man sëñ Modou Rokhaya ma yar li ma xam mooy xeex ba jeex tàkk nga am sa ndam dem man de président Macky man lii ma def nii damaa kontaan ci def ko ndax man du ko jóg nag jot ci man wante nag sama sëriñ day sama sëriñ di sama xarit xam na ne politique dama koo bëgg yàgg naa koo def sama nijaay sëñ Modou Rokhaya moo ma ci dugaloon sama sëriñ accompagné ma bàyyi ma nekk ci sama kanam nekk sama ginnaaw lu ma neex def ci dëkk bi. sëñ Thierno Gueye yow dinaa wax ci yow ndax dangaa demoon dangaa nekkoon ci parti mi ànd ak Idrissa Seck. ma ñëw waxtaan ak yow nga ne ma man foo nekk dinaa fa dem ndax dangaa yàgg ci politique am nga ci ñaar fukki at te mosuma gis nga jëriñ ci politique. kon doomi dëkk bépp dañoo war a jóg laxa saayu ànd ak yow booloo yow takku nekk ci sa ginnaaw xeexal la nga am dara ci politique bi. man bés a dafay bàyyi naa Idrissa Seck ñëw naa ci président Macky ci sa ginnaaw ànd ak yow liggéeyal Macky Sall Thierno rooree na de. ñu ngi leen a xamal ne daal mbir mi la 24. février bëgg nañ école Touba Mame Cheikh Anta école Soxna Xarit Penda Fall école Sëñ Omar Diop li ëpp ci Daaru Salaam fa la ñuy wootee bëgg naa école yooyu yëpp ñun biñ nekk opposition école yooyu yëpp ñoo ko daan raafal gañ ko kenn mësu faa gañ ko ñun na loolu am nañ droit taalal suñu loxo wax ko daaw ngi woon bokk gis-gis coalition ci listu Abdoulaye Wade bi waaye école yii yëpp xam nañ ne soxna Ndeye Diop moo ko gañ bokkoo kenn kon nag président Macky Sall ñëwee wax na yow su fekkee ne mbaa département Mbacké gi ba élection amee tey mosoo fee gañ ma ne maa la wax lii soo tëddee nelawal sa xel na dal danañ ci def lu ñu man ak lu ñu mënut maa ngi koy wax léegi ci métinu sëñ Galas Mbacké nee naa leen boo taxawalee saaku pepp duy ko ba mu fees war nga koo boros ay pepp danga wadi ci suuf carte yooyu moo ciy mooy Macky Sall waaye kees danañ ko feesal dell am maroo bees bu am bopp fas bi na ko xàmmee amuloo bi boo ko kolee ñun dañuy ñàkk ko kolut bu kayit bu waddee ñun dañuy ñàkk dañoo bëgg amuloo bi ngeen roof ko ba mu dëgër jële cat li rek ci biir bul kole bul ñàkk a roof ndax day wadd te boo dee day niir soo tegalee ñaari kay dugal ci biir amuloo bi day nii. nii la andi. waaw kon nag damaa bëgg yéen ñëpp ngeen taxaw jàppale ñu jàppale ñu président Macky Sall ren jii dafa ñëw Daaru Salaam siyaare sëriñ bi damaa bëgg ngeen jàppale ñu le 24 balaa 2 heures a jot ñu feesal kees yi dell ak liste président Macky dañoo war a jàppoo nekk benn ñun waa Daaru Salaam takkoo ànd liggéey président Macky Sall geesuñu gore yu góor yi fi nekk ak gore yu jigéen yi am ay poste jigéen ñi fi nekk jigéen ñi fi nekk procès yi ñuy joxe Daaru Salaam doyal ndax ñun DER bii ñuy wax dañ koo dégg rek gisuñu DER dégguñu DER benn dara dugg Daaru Salaam wala bu fa duggee boo topp na ko te ndax ñun dañoo nekkoon opposition waa APR seeni nit lañ doon financé ñun kenn financé wuñ lu ëpp junni nit laa boot ku ci am na wax ku am ci DER bi ci ku ci soxna Ndeye na wax ñun gisuñu procès dégguñu procès Sall soxna Marème Faye yow mi nga xam ne yaa yor yi ñi nga lay xamal ne jigéenu Daaru Salaam ñi nga toog la déglu li nga bëgg da nga ko am waaye boo ko amee ñu itam nag ñu geestu Daaru Salaam amul tëli bëgg nañ nga may ñu ay kilomètres ci biir dëkk bi kon dëkk yi tëli yu gàtt yi dugg ci biir koñ yi bëgg nañ ci li ma koy faral di waxee ci daj yi lampadaire yu weex yi taal nekk ci dëkk yi ñi koy am gënuñu ndax maam si Anta da moo lay jóg jóg daa jógoon ànd ak Serigne Touba kon bëgg nañ président Macky Sall geesul Daaru Salaam mu mel ne dëkk yi mel ne Fanaam kon lii wax maa ngi leen di ñaanal li ñu bëgg ñun nañ ko am. ma di xamal Macky Sall ne ko di xamal waa Daaru Salaam ne leen soxna mi fi mu teg tànkam ñu teg fa suñu tànk Macky Sall ki mënu ko tey bañ a gañe Daaru Salaam. ba ñuy waxal ne maanaam Macky Sall amul awkat Daaru Salaam loolu wax moom wax wax la joxee maaw wax la joxee daf dafa nekk wax ju yàqu parce que ñi ko amuñu mbooloo ko amuñu mbooloo nag yilifoo ak ginaar sa kër mënoo yilif doo nga booy jox sa ndox kooku mun taxañ Macky Sall aw carte was Daaru dina am coom insha allah rabbi Daaru Salaam mu ne kenn dara jombu ni ngeen takkoo ci ginnaaw soxna ndey moo leen mën a may lu bari kon boog bu bis ba rabbi ànd leen ak moom ngeen voté Macky Sall mu gagné dès premier tour am nañ ci yaakaar te incha allahu rabbi loolu day am mbir mi nag dañoo wax ni barigo mbartal la soo tegee sa loxo mu dem boo tegul sa loxo mu dem nañ ànd ak soxna Ndeye loxo barigo bi bëriwul ñu jël victoire bi dès le premier